de villages de près de 1400 à 1700 et quelques le lieu pour que le Sénégal monte gagner, et les voleurs n'ont pas voulu de cela nous ne l'aimons du parce que intérêt Sénégal la dit. il est de mour et de Nyaning. Jean-Michel Senne, merci beaucoup Mangi nuyu ku nek ci sa tour ak ci sa sant di len wax juste que yéen ñep xam ngeen fuñu ñu le 24 mars 2024 ñun le peuple sénégalais dafa am li nga xam dañ ko décider décider voter pour une rupture systémique au Sénégal voter pour japp ni que Sénégal dafa war jaar fi changer ba faw décision boobu nga xam ne nag nañ ko ba pare dafa jot pour mu antu pour mu antu nak dafa am lenn li nga xamne ne ñu dese lu ñu dese xam ngeen lan la muy assemblée nationale bi nga xamne ne ñun pour le moment amaguñu fa majorité loolu lañu wara fexé am dafa melni rek ngeen am kenn ki nga xamne ne da ngeen ko yoni yoni ko bu pare mu ne len instant bi dafa am leneen lu mo soxla muy pass bo mu non xam ngeen lan la une majorité écrasante le 17 novembre 2024. Nous avons décidé jiital le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko bi nga fait moment de les jeunes du Sénégal nous avons décidé de faire jot li ñoo ko décidé mu am ñenn ñi nga xamné ne néna loolu du fi amé ba tax na tay vision 2050 ju nga xam ne moom présenter. le master plan 5 euh, stratégique 2024 2035 ak le plan quinquennal 2025 2029 bu nga xam moom la ñu présenté jàpp nañ ne pour loolu noonu antu ñetti étape moom moo la ñu am redressement impulsion ak accélération ci redressement boobu nag redressement boobu nag dafa am lu nga xam ne dañ ko soxna muy les réformes idoines pour ñu mu ci dem ku wax réforme nag naan da nga soxla assemblée nationale pour loolu noonu est-ce que pare ngeen pour ñu def ces réformes là est-ce que le peuple sénégalais va confirmer le changement systémique bi nga xam ne moom la woote donc jot na waa mbokki Mbour ñu wax ne le président Ousmane Sonko bi nekk fii toog lu ñu gën a gore

contrat bi mu renégocié amna lu mu def ñu jox len docteur Abdourahmane Diouf doore ñew ñaari message rek la amone yo xamné du gudd. février 2019 yagna février 2019 ci la Ousmane Sonko nekkoon candidat élection présidentielle sénégalais yi votel ko mu jël troisième. depuis lors ñetti élection jall nañ fi élection locale en 2022 mais sénégalais ont eu l'occasion occasion voter Ousmane Sonko Wa Ziguinchor ñoo eu occasion voter. Élections élection législative jaar fi nguur gi fi ne Ousmane Sonko du don candidat nekkul candidat élection présidentielle jaaraat fi ñu ne Ousmane Sonko du don candidat candidat Lima 17 novembre c'est le jour de Ousmane Sonko justement c'est le jour où on doit lui rendre hommage c'est le jour où on doit régler toutes les injustices qu'il a subies sur les cinq dernières années donc képp de nationale on vous donne rendez-vous le 17 novembre pour nous rendre hommage nous gagnons une majorité à l'Assemblée nationale. Le deuxième message et le dernier dama vous nous adversaire ñu avons opposition Ousmane Sonko nous ni pouvoir exécutif après pouvoir législatif jox même pouvoir nous da équilibré

Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Abdourahman Diouf. waa côté bii war nañ leen cee boole daa mais gis ngeen daam lu am solo lo xamantene ne la ko seetlu dama seetlu ne nekkete midik bi. dégg ngeen docteur Abdourahman Diouf mo wax dégg ngeen kaddu yi nga xam mom la wax mo di fi toll dañu bëgg majorité. ci assemblée nationale ta japp nañ ni fook ñu am majorité gogé ngir bëgg def liggéey bi nga xamné mom lañu bëgg def ñu déglu Sadiq Top xool leen kàddu lay yëkëti waaye damay duggal ki nga xamantene mom modi